nataal fukk yàlla jox na ndigle yu bari musaa te bëggoon na nit ñépp déggal ko lii yenn la ci ndigle yi bul defar benn xërëm ak lenn lu ñu sàkk ci kaw asamaan ci kaw suuf walla ci biir ndox bu leen sujootal te bu jaamu am nga juróom benn bés yi ngay liggéey juróom ñaareelu bés bi sama bés la borom bi di yàlla moo la ko digale te doo ko liggéey joxal cër sa baay ak sa ndey bul rey bul njaaloo bul xemem sa jabaru mbokk walla ki nga dëkkal bul sàcc te bul fen